asalaamaaleykum mbokki internet yi ñuy seetaan fii ci seen chaîne Yelli TV ñu fas yéene ñëw rek tey jàmbaarloog sama góor ñi yéen a ma tax a jóg ndax kenn ku ne xam na ne jamono ji naqane na léegi ba ñëpp a amee te kenn ku ne xam na ne stress àndul ak bànneex waaye boo demee ba war a ak sa partenaire dinaa la jox remède boo xam ne boo ko jëfandikoo rek incha allah. ngëneel rek nga ci gis yéen ñi nga xam ne am ngeen mixeur jëlal ma ñetti guus daay ñetti doomu laaj yu mag mais doomu laaj bu ne day ànd ak jinjeer bu mag bu mu àndal raxasal ba mu set xolli ko ba mu set raxas ba mu set jël sa mixeur mixé ko jël liitaru ndox butéelu kireen yi segg ko ba mu set wicc yow mi nga xam ne am nga réfrigérateur boo demee ba di ko utiliser tamit boo xelee sa veer nga suukaree ko ñaari kuddu yu mag lem mais nag comme kaasu verre yi dafa am différence am na yu gudd am na yu gàtt bu dee bu gudd bi la xelil ba ci digg bi nga suukaree ko ñaari kuddu lem bu dee veer yu gàtt yi mën nga koo def ba mu fees nga suukaree sa ñaari kuddu lem boo xamee ni trent minutes moo ci des pour nga tëddi nga naan ko incha allah impec même jigéen ki sax mën na koo jëfandikoo yow mi nga xam ne doo santi sa bopp mën nga koo naan am cawarte boo demee ba xam ne nag amoo mixeur te mu yëtteel la doomu laaj bi ci boppam ngay dindi ñetti doomu laaj yu ndaw ak jinjeer bu yem nga dëbb ko ba mu mokk ci gën na jël mouchoir à nal ko tuuti ndox mi ngay def ci mouchoir bi nal ko ci kaasu ataaya ba mu fees jël ñaari kuddulem suukaree ko ko naan bu desee fanweeri nit balaa ngay tëdd di seq sa partenaire. bonus bi ci nekk nag mooy yéen góor ñi jinjeer lu bari lay faj ci ku góor ki bari na ñu naan boo ko naanee tey guddi ki nangam sangam mais li ci ngëneel mooy spermatozoïde yi mu yokk day yokki doomi walax njaan loolu la jinjeer boobu loolu lay def ci góor effet boobu moom lay def ci góor muy remède bu baax a baax a baax yow muy ku jigéen ki tamit mën nga kaa def naan ko am cawarte yow mii ku jigéen ki mën nga kaa utiliser comme ni ko góor ki di utiliser yow mii ku jigéen ki mën nga koo utiliser yow mi nga xam ne doo sentir sa bopp wala doo yëg bànneex wala dangay tàyyel mën nga koo jël wala fanweeri minute ngay tëddi ñii laa leen indiloon tey ci seen chaîne Yelli TV di leen ñaan nag ngeen abonné bës cloche bi bu ngeen ñu laajee rek ñu tontu leen lépp lu leen jaaxal bu ngeen ñu laajee rek ñu tontu leen incha allah lii laa leen indiloon tey jox dig daje ba beneen.